Rewmi 24 TV Mingo pour rencontre du chef de l'État du Sénégal Sène Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec les membres de sa coalition Diomaye Président à l'hôtel King Fahd Palace ni ki tey jii ngeen gis euh, naataangoom yi ñëpp teew ñi nga xamee ne ñoom ñoo bokk ci coalition Diomaye Président ni ki noonu ginnaaw ba nga xamee ne démb rek daal di nañu nag nommé yi les vingt cinq ministres waaye mu mel ne kon tey jii daal dina ñuy defaat prendre contour fële ca euh, kin fat euh, place mu mel ne kon ñëpp teew nañ fa yéen a gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk coalition jomaay ak ki nga xamante ne le président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko yéen a gis ni ki tey jii mu doon loo xamee ne fi mu toll nii euh, jàpp jublu ci liggéey bi rek ngir mën a suqali ñu bari la xaar mooy loolu fi mu toll nii